mais wóolu it te yàlla tax rek nit ku ñuul moo naqaree xam dafa lënd man man naa laa xam ñuy toog maa ngi toog tout ça mais lu mu la xam lu ma a xam xam xam am na lu des am na loo xam ne wonoo ma ko li ma won rek moom laay gam moom laay xam am na loo xam ne du ko mos a ci yow nit ku ñuul moo lëndëm moo naqaree xam. nit ku ñuul nit nit ku ñuul mais nit ku pour man nit ku weex moo gën a dëggu nit ku ñuul pour man. loolu foo ko teg. loolu foo ko teg loolu dafa même yow mii di wax sax am nga lañ ci xam nit ku ñuul moo doon mën a wor léegi te tubaab lu mu la wax da koy def. mais nit ku ñuul li tax mu lay war est def li loolu seen jikko

am na. am na confiance am na. confiance am na mais bëreetul. confiance am na mais bëreetul confiance. confiance am na. am na am na yow ah. léegi ñi d'accord ne am na. ñàkk nañ yéen ñàkk yow. bon confiance am na waaye bëreetul am na mais bëreetul am na mais jafe na tamit am na nag mais ay. benn benn quoi waxal leen dëng bee bëri mais confiance bi parce que man bu ma dëng rek nga dëng.

lakkal genn wàll bi waaye genn wàll xam naa dafa am na waaye tamit jafe na maanaam lakkal genn wàll bi bàyyi genn wàll. xam na dafa léegi mais li may wax ak yow nii. lii dafa dafa laa ko yomb léegi dafa jafe yomb yomb yomb man xam nga fan laa teg loolu man. waaw man li may wax ak yow nii su ma jógee ñëw dama soxla saa bee saa bee ci baax bi yaa ngi gis su ma jógee ñëw sama soxla laa ko sama soxla bi ma ko tey dafa yëngu demi deux ans su ma jógee saa baax bi maa ngi koy dénk ak yow loo xam ne sama rakk ko bokkal leer ñu ngi may xamal loo xam ne sama papa sama yaay kenn xamul ko te bés ma ñëwee dama ci gis lu fi yokk dama ci gis lu fi wàññi loolu nag mu confiance moo ma ko may parce que amaana bu may fekk foo xam ne sama rak ma bokkal ndey baay amaana bi may saxam moom ak ñi bi loolu ma koy ba ni ma laa yow nii am na lu ma fa bàyyi bay ñëw ñu doom doom confiance moo tax te bokk ñu ñaar dina bajal doomu bajal doomu ñu daal dama jóge fële bawol ma jóge si ñu doon yàlla boole confiance ak am na confiance mi ngi am ba léegi nee na ma lakk genn wàll gi ma bàyyi genn wàll d'accord ngeen si loolu wala ñu a lakk confiance ñu demaat beneen waxtaan boo xam ne confiance moom am na buñ ko lakk léegi portable yi portable yi baax na wala baaxul portable la portable am na njëriñ wala amul njëriñ li mu yàq moo ëpp li mu defar wala parce que lii lépp dafa nekk si mujj jamono portable baax na mais njëriñ li bëriwul baax na nag mais baax na si des cas ko demee waaye ay tooke doon man pour man portable boo ci bëggee def lu la neex wala lu bon rek nga ko ciy def bu question la da woote ak da ngay mën gis xale góor yoo xam ne dañuy yor seen téléphone ne la ma euh, photo temps mais loolu ci góor ñi góor ñi lañ ko war a gën a mën a ràññee. portable. kon loolu baax na xanaa comme ni nga jógee léegi la rek gis nañu jub ñu ngi jub ba léegi ñu dégg ñu ngi dégg ba léegi ku xamal la leen nag gis ngeen dëkk moom boo ko fas yéene ah balaa léeg balaa yëg balaa yëg balaa ñu dëkk koo rëdd ndax ci sa doom ba ñu doon comme léegi am saal de doom nga duggee ci daal da lay gën a def léegi bu naree baax te yow papa bi nga baax yaayam baax ñoom teg ko loolu baax mu yegg man ci jubbaay la portable baax la li ñoo day lépp papa bi liggéey day jala portable ba sama diggante jala portable ba xoolal rek boo duggee da lay naan lu bon laa ngi nii naan la lu baax laa ngi nii fu la neex nga aw bu la neexee nga aw lu baax li bu la neexee nga aw bu bon bi am na walla amul mais portable maanaam lente mën naa la dafa yokk njaalu bi potable dafa yokk njaalo. mais pour man. mais baax na lu tax baax na nit ak nuñ koy yare rek yàlla defal bind lu baax ak lu bu la neexee nga dem ci lu baax bu la neexee nga dem ci lu bon am de portable dafa defar lu bare bare lu tax ba wax la man kaw kaw la nit da doon gaañu ca dëkk nee naa la mbokk yi fàttali ne Dakar mais dañ lay jox paas ne la demal Dakar boo demee Dakar nga ñëpp wax ay ñu yëg nga delluwaat xoolal lu méttee mu defar lu potable man dama lay soxla ah. ma wax suñu soxla. 20 minutes nga tëj 2 minutes moo des. yi la ci nit yi la portable bonu portable dafa am lu mu defar mais nag dafa yokk njaalo bi. ok portable dañ koy lakk wala dañ koy bàyyi. dañ portable dañ koy waxtaanee waat ah portable ak confiance ah. mbëggeel am na wala amul. pas bëri intérêt bi naqs parce que man man mi di wax yow nii lu bëri damay jël exemple pour sama bopp lu bëri damay jël exemple pour sama bopp mooy ma wala loolu man mi di wax yow nii gën a xale bu jigéen bëgg na ba ma am ne bëgg na ma yaa ngi dégg papam lépp koo xam ne voyage yi dem mais xam nga ba ma ko ñaaree xam nga lan la may bayee bi ma ci leeg laa yow ma jëma neuf laa yor la boobu lam bu ma wax noonu mu def six mois ma affecté ko mu jàng keneen mu naan kii élément dafay yàqu di gën a gën pour ñu amaat beneen émission yaa ngi dégg fi may wax Bradda Cash la ñuy xaar ñu am 20 minutes ñu xam beneen yaa ngi dégg li may wax boo xamante ni amaana intérêt la yaa ngi dégg mais intérêt boobu yeneen ñu nekk ci la xam si nga xam ne amaana dafa ko xaalis moo yàq xale yu jigéen ñi dañoo topp mais am na nag am na mais dafa bare ndax xale yi jigéen ñi xaalis ay jiital mbaraan nañ jiital. mais du ñëpp. mais dafa bare ndax da am gën da lay leer ne gën boobu dafay day yor lu mat man taximaan la damay damay damay yëpp lu jigéen mu leer ne ma kii faram mais bu duggee xam nga lan la lay wax far bi da koy fayal pour ñu mais xam nga lan la la yóbbuwaat na feneen boo ko yóbbuwaatee feneen feneen foofu muy dem ba jox ma deux mille garaayo lan waxat ndaw si bu mu yéegi ma fay naan pour ma yóbbu ma sax def mais dama dégg mu waxante ak nit téléphone may dégg seen wax téléphone mu ne ma yóbbul ma yóbbu ma certificat xam nga lan moo bari paquet am na am na bug te yàlla tax am na te boo buggee te yàlla tax doo xaalis doo dara mais nag mbaraan bi moo ubbi xale yu jigéen yi dañoo topp mbaraan te nangoo duñoo seen mais du góor da ngay nekk ak jigéen mu leer na yow kii mbaraan non tamit góor ñi ni mbaraan moo ëpp jigéen moom mais maraat ci jigéen lañ ko xamee woon. maraat déet déet est jigéen ñi ñooy maraat. non non ñoo ëpp luy maraat léegi. jigéen ñi ñoo ëpp mu leer ndax mbëggeel am na wala déet quoi mbëggeel. waaw ñeenti fan ñeenti waaw dëgg la am na ñu dañu bokk numéro yi dañu kee kee kee bee nga ko jox kee numéro bee nga ko jox xale yi ñooy bare jigéen ñi dañuy mbaraan mbateel am na mais mbaraan bi moo ëpp. mais ni jigéen di a booy gis ko demee ba miin que xam nga loolu mbaraan boo demee ba miin ko doo doo sëy mbaraan baaxul. a بعينك ممكن تكون حتى مدير وين البقل am na quoi bëggeel moom lu am la. ok mbëggeel ñi ñi nangu yu mbëggeel am na. mbëggeel. yow. mbëggeel am na may bare. dañu koy lakk waaye dañu ko lakk. mbëggeel bi ñu xam ba tey. mbëggeel amul ah léegi ñii mbëgg mbëggeel dañ koy lakk wala dañ ko lakk yëkkati sa loxo bu fekkee ak ah amul si laay am na mais bare daa bëggoon tey ah daa bëggoon tey ànd ak sa boy Moussa mbëggeel am na wala amul mbëggeel am na de mbëggeel am na mais bare mbëggeel mënul jóge ci àdduna parce que xam nga dafa bare mënul fee jóge mbëggeel am na man dama bëgg am benn benn message bu ma bëgg a jàpp bu ma jàllale message boobu bu ñu ko jàllale peut être seen bi mën na dox ba dina doon leçon boo xam ci nekk bu ci mën a baax loolu dafa war a man a jël benn nekk bu ndaw rek boo xam dañ koy lancer message ci askan wi ñu ko mën a gëstu ba ku ci nekk mu jëriñ ko man du ma ci laaj bu kaddu ma la gën a wax ñu aussi jigéen bu ci nekk. kamu yang dapat. Lagi uh, sunu eh, yang tahun nanti dan saya dan Senegal TV di moy premier party bi dañuy nekk tu ci deuxième party bi ñu égalé rek parada ci place di waxtanu tambis. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.